yaa ngi màgg ba soxla yenn assainissement yi am projet Promoville mhm. mais sottal tali yi ci kaw ñëpp di ko gis moo leen gën a ñu koy def ci suuf alors loolu dañ ko war a changer mhm. parce que tali yi dafay continuer certes mais bien-être nit ñi dafa am solo te jamono ji nit ñi ñu ngi dund souffrance boo xam ne daanaka dëkk village sax moo gën dëkk ville te loolu ñoom la neex. parce que lépp mu ngi ci biir projet yi exécuté da nga moom moo ci des et travaux yi euh, ñoom ñoo ko yeexal. Euh, Serigne Saliou Kër Massar bi ñuy jooy euh, mbënn mi ci leen ko def département ñeneen itam di jooy ñu leen di yóbbul ay moto pompe ak ay ceeb ndax jotul politique bi ñu génne ko ci ci xeex bi. buñ ci génnewul politique du ñu liggéey lu mu som mu sotti. Mhm. parce que politique politicienne baaxul ci baaxul ci baaxul ci dara. bu fekkee ne waa Kër Massar dañu am un des problèmes. d'aménagement des problèmes inondation des problèmes d'urbanisme mm je crois que li Fatou Abdou waxoon léegi la ñu loolu la ñu war a njëkk a prioriser quels sont d'abord les problèmes de waa Kër Massar ñu jëm ko régler mm-hmm. te jël politique bi ci teg ko de côté mais on a l'impression que le côté administratif la départementalisation loolu la ñu jël gën ko prioriser finalement quand même résoudre les problèmes de de, de, de euh, des habitants de Kër Massar mm-hmm. loolu nag je crois que quand il va falloir que nguur gi ñu arrêté parce que population yi ils n'ont pas besoin de cette politique politicienne ils ont besoin de la vraie politique la vraie politique xam nga c'est mooy lan mooy l'art de régler les besoins de la cité mhm. or régler les besoins de la cité mooy nga lister ñoom li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg nga jëm ko saafara te nga jël politique bi teg ko fële mhm. bu fekkee ne dañ koy def à des fins électoralistes je crois que là ils sont en train de se tromper parce que population yi aussi tey kenn mëntu leen nax lépp loo nga xam moom lañ leen defal xam nañ ko lu ñu war a aussi bu heure vote ba jotee dinañ ko voter mais de grâce ñi nga xamante ne dañ leen a dañ leen a teg tey fii ñuy jiite nguur gi ñoom dañu am benn mission seen mission mooy lan vraiment venir en aide aux populations sénégalaises qui souffrent tant depuis vraiment euh, un certain euh, te ci souffrance boobu la sax Fatou Abdou projet bu ñu fi teg rek am ñu ñu ci lor gis nañu BRT bi kër yi nga xam ne mu ngi koy yàq te kenn fekku leen fa ngir wàllu leen. waaw léegi nag li ñuy xaar moom mooy tey benn kër bu daanu woon xam nga BRT bi dafa jaar ci ay buntu kër yoo xamante ne danga naan sax ñii naka la ñu dafa bàyyi leen ci c'est-à-dire que parfois état buy def dafay assumer. Mm-hmm. mënoo jëlee ñenn ñi mais nga ba fa ñoo xamante ne dañu jege les travaux. Mm-hmm. boo jógee tey Padois di dem croisement 22 romb Casba jëm pharmacie Golf jëm Guédiawaye gis travaux BRT bi ni ñu tojee foofu ak ni ñu ko ni ñu dendee kër yi da ngay sax tiit benn kër moo doon daanu nga gis préfet déplacé nga gis tey ka nga xam ne moo yor projet bi déplacé fa boo moytul sax le ministre de l'intérieur se déplace sur les lieux euh, pour constater yi mhm. ba béy woy mbuus ñu topp doon indi indi solution gis nga mbënn mi bu tawaatee tawaat ñu déclenché waat plan mhm. a déplacer loolu mhm. dañu war a fekk toll tey ci fi nga xam ne mooy plan yu ñu tegoon nu ñu ko exécuté xool lan lañ ci jot def ak lan moo ci des te boo rombee fa nga xamante ne moom mooy croisement Cambérène fu ay travaux am électricité ba maanaam éclairage public ba sax doyul